xarit maa ngi lay ziar di la dal sa émission ànd ak sunu partenaire waa ASSOD yi nag ñëw di la présenter engrais foliaire bi ñuy woowee Aminolif 510. campagne bi ñu jógee nag yure jafe woon na loolu njëg li egg foo xam ne baykat yu bëri mu amatuñ ci woon accès looloo waral tamit waa ASSOD proposé ñu produit bi nekk engrais foliaire bi nga xam ni mën na remplacer urée boobu ci gàncax gu ndaw gi ak bi nga xam ni mi ngi màgg. engrais foliaire bi nag formulation am 35 6 10 la ànd ak ay oligo éléments su nee la 35 6 10 gi yaa ngi koy comparé ak ure 46 00 nga gis ni mën na nekk lu am solo loo xam ne mën na jege loolu formulation urée. moom nag am na yeneen ferñeent yu mel ni boor cuivre fer manganèse zinc molybdène yu mu àndal molybdène boobu nag day gën a dooleel gàncax gi pour mu mën a jëriñoo tos bi ngay indi ci suuf si. dose bi ngay soxla par hectare mi ngi ci diggante trois à cinq kilos su la neexee tamit mën nga ko nattee par ñaari kuddu yi ni añee ci pulvérisateur u seize litres bu nekk produit bi nag am na fii sunu place bi ndar croisement bango wante foo nekk ci Sénégal mën na na ko yóbbante incha allah yeneen produit yi niy proposé tamit mi ngi sunu biir catalogue bi ci suufu vidéo bi